mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziara di jiital ci siyaar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñ borom dolli ko yàggal lool euh, te wéral ko Mbacké Balla Aïssa waaye di siyaar baax tey ñaanal liggéeyaa konam bi Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda borom pasef bu rëy ba borom jaayante bu rëy ba euh, suñ borom gën koo yàggal lool euh, te wéral ko waaye di siyaar mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di siyaar mboolem taalibe yëpp mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek ci tabaski gi ñuy dëgmal eh, ñoo ngi fii tey eh, ci Touba Jannatul Mahwa fii ci Baye Fall ga fii ci kër Maam Cheikh Ibrahima Fall eh, Babul Mouridina tey jii di vendredi tombeeg la 14 juin 2024 comme ni ngeen ko baaxoo gisee rek ndigal li nga xam ne Serigne Touba Cheikhoul Bamba Khadim Rasoul moo ko joxoon taalibeem bu mag ba di maam Cheikh Ibrahima mu Baabul dina leetar ba Baye ma Lamine Diop Jaxeer moo ko yóbbu woon lañ bind ci leetar ba mooy boo demee nga ne ku tedd ki Ibra Fall nee ndax sañ naa tabaski sëriñ bi daan ne Baye ma Lamine Diop Jaxeer boo demee nga ne Ibra lépp lu ne ca kër ga na ko dàq indi bu fa jógee nag ci jullukaay ba lu mu fa fekk euh, lu mu fa fekk tabaski sëriñ Saliou Fall tawa nee na baayam da koo yónni fukki xar ak ñaar mu ñëw fekk maam Cheikh Ibrahima dem gébbu waaye mu fekk fa leetar bu Sëñ Tuubaa bind eh, Cheikh Ibrahima Fall di ko laaj fukki xar ak ñaar waaye ñu bind ca leetar ba Saliou Fall kat eh, waaw mu daal di wax ne borom denc bi kat dafa yëg ab dencam waaye Saliou Fall kat na sant yàlla ndax sa waajur laa njëkk a rambu laatu ñuy julli fajar loolu nag moo waral mbooleem njaboot gi lool ndigal loolu lañ topp li ko tàmbalee ci ki njëkk a wutu maam Cheikh Ibrahima Fall ba tey ki nga xam ne tey moo fi nekk tey di ñaan suñ borom yàggal ko loolu te wéral ko mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall saa yu waxtu yu jotee rek ñu jël ay xar yu am solo xar yu suur di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba Cheikh Madou Mountakha Mbacké gis ngeen euh, camion yaa ngi noon suñ ginnaaw ñoo ngi sëf xar yi euh, mel na ne euh, yéeme na lool nag ndax liggéey la boo xamante ni Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moom la mu diggante ak ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom de ba léegi mi ngi ci ak njabootam ñi ngi ci kon noonu la ñuy ànd ak Souleymane suñ cameraman ñu dugg ci biir xool ni ñuy safi xar yi waaye xool yi ni ñu koy yóbboo ba keroog ñu koy jébbal Serigne bi ndax ab Baye saa yu jëfee ba pare waaw góor rek la bëgg. bi ñu xëyee rek ci aljuma ji dëppoo nag fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2024 fii ci bayfal gi nekkee ci ginnaaw jannatul maxwa fi la mboolem kilifa yi ak taalibe yi dajaloo ngir waajal liggéey bi nga xam ni moom lañ fas yéene dem jébbal kii fi nekkal Serigne Touba. muy cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général de Mourides muy liggéey bi nga xam ni at mu jot mooy bàyyeekoo ci kii fi nekkal maam Cheikh Fall muy Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda ngir jébbal ko Serigne bi mu jëm ci xaru tabaski loole nag lépp lu jëm ci wàccaay gi def nañ ko waajal xar yi sang leen ba mel nu mucc ayib noo xamante nii dana méngoog addiye joo xam ne dañ koy teg ci loxo yi Cheikhul Khadim ci atum ren jii nag Baye Fall yi jot nañoo dajale lu toll ci junniy xar ak téeméer ak fanweer yoo xam ni moom lañ fa yéene jébbal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides mu nekk lim boo xam ne nag am na yokkute bu baax a baax suñ ko méngaleeg li nga xam ne moom lañ joxe woon ni ki daaw ci atum 2023 bi boole ci ñaar fukki xar ak juróom-ñett yi nga xam ni at mu jot dañ koy yóbbu ca njaareem soo boolee limub xar yi nga xamante ni xalif général des Baye Fall moom la joxe lépp ci tabaski gi ñu ko xayma ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett di liggéey bu am solo Cheikh Ibra la ilaha ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله ممسور خان لا إله إلا الله لا إله إلا الله ممسور خان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فان لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah Cheikh Ibra la ilaha illallah la ilaha illallah Moussa la ilaha illallah la ilaha illallah Moussa la ilaha Musa la bi ñu xëyee nag yab nañ mboolem xar ci camion yi jiital leen ñu dem ci kër sëriñ ba waaye laata ñu fi bàyyeekoo di dem sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Modou Aminta am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko. di soññ mboolem taalibe yi ci liggéey bi waaye santaat leen bu baax a baax gërëm leen ci ni nga xam ne noonu lañ taxawee ci xaru tabaski yi waaye soññaat mboolem taalibe yi ci ndigal yi nga xam ne moo nekk ci kanam. kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala na ci turu Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ji di xalifa général de Baye Fall Serigne baa ngi jottali kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant. ak kàddu yu ngërëm ak kàddu yu ñaan di xam ne liggéey bii mu doon liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall jottali woon ko murid yëpp nee na gis na Pastef bi ci murid yi def ak bëgg gi ak yéene ji liggéey bi nag moom ne mel na ne egg na foo xam ni musu fee egg ndax kat daaw dafa mel ni nëgë ni si daaw jébbale woon nanu junnee xar ak téeméer ak ñaar fukk sëñ Ablaay loolu nag buñ ko xoolee sëñ Ablaay mooy mille mille cent vingt mille cent vingt ci ay xar di junni xar nag ak téeméer ak ñaar fukk nee nag ren jii nag dafa mel ni seenu jéego àgg na ci junnee xar ak téeméeri xar ak fanweeri xar ak ñaar fukki xar yi nga xam ak juróom-ñett moo daan dem njaareem loolu dem njaarim kon sëñ di Fall nee na mu ngi leen di sant di gërëm bu baax di ñaan nag ci barke maamam ji baax ji sunu borom gën a guddal seeni fan te wéral seeni yaram dolli seeni xéwal dolli seeni wërsëg ban gën a jekku ndigalu sëñ bi bu baax a baax te yàgg koo jëfe lool nag liggéey bi nag sëñ Ablaye Ndaw sëñ Fallou nee na yegg na foo xam ne nee na ku ci bokk war ngaa sant yàlla sa borom bu baax waaye ku ci bokkul de war ngaa fëjjale sa laxasaay liggéey bii nga xam ne moom la Serigne Fall yi liggéey sëñ Touba mooy liggéey bi nga xam ne moo gën a sëriñ Touba ci liggéey bi nee kon nag ku ci bokk war ngaa sant yàlla nee ku ci bokkul nag war ngaa ñaan yàlla lay tax nga mën caa bokk saa borom defal la ko mooy mën a liggéey sëñ bi rek. te yàgg koo fekke tey bokk ci ndigal li rek ndigal li kat nee na wax du ci boole kenn xool du ci boole kenn fekk du ci boole kenn da ngay jëf boo jëfee daal sëñ bi moom xàmmee na jëf yi nee dina ko teqale kenn ku nekk la nga ci bëgg nee dina ko nangu defal la ci sa bëgg kon nañu jéem di bokk ci ndigal yi sëñ Ablaay nee nu ko sëriñ bi bëgg rek ñoo ngi ñaan su borom mu man loonu ko ñu di ko def nde sëñ bi moom li mu bëgg sëñ Ablaay faw moom dana am li ñuy dimbali nag mooy nga ñaan yàlla bokk ci ñiy def bëggu sëriñ bi waaye suñ ci bokkulit sëñ bi moom di mu bëgg dina am kon ñun ñi yàlla boole ak moom ñoo war a sant yàlla bu baax te góorgóorlu bu baax a baax te xam ne kat sëñ bi moom li mu bëgg buñ ko fi bàyyi woon dem saa borom dina fi indi ñu nu gën dàq ñu ko defal ko la mu bëgg lépp waaye faw mu am waaye ku yàlla boole ci ña koy def nga yow war ngaa sa yàlla bu baax fidile sa laxasaay te mel ni defagul dara nag nu waajiwaat rek ñaan yàlla fekkewaat ay déwén yu bari déwén ji ñu jëm sëñ baa ngi ñaan suñu borom mu fekk na ko ñun ñëpp te man loonu lii sëriñ bi bëgg ba nii nu koy defee nu gën koo man rek te yàgg koo def lool sëñ baa ngi ñaan nag jàmm sëñ Ablaay ci àdduna jëpp nag rawatina réew mi di Sénégal rawatina fu ab jullit man a nekk rawatina murit yi sëñ baa ngi ñaanal ñëpp jàmm ak yokk ak wér ak xéwal ak yàgg ba lii ñuy def rek ñu gën koo man te yàgg koo defal sëñ bu baax sëñ bi nekkoon sëñ Ablaay neel réew mi ak bitim réew sëñ bi ne jërë ngeen jëfati sëñ bi nag mi nga soññee lii nga xam ne moo ne ci kanam te moom du jeex mukk muy ndigal yi nan koy waajal bu baax ne daa mel ne kat màggal gi moo fi gën a jege bu leneen ndigal jugaatugul te buñ ci àggee xam ngeen nan ko daan defe de murid bu ne na nga ne wut nag bu baax baa nga wut xar bu baax baa la nga man ci sa poos nga ñëw jox ko sab sëriñ siyaare ko ko ci màggal gi waaye moom waxuñu nga ñëw rek ak loxoy kese borom màggal gi daa waxoon ni bisam bii bisub sant yàlla la bu ñëwatee nam na ci sant yàlla saa borom cant gi nañ ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay man nanga ko ci defal sant la ma yàlla sunu borom ndax nee na lii ko yàlla defal ci ñu boppam wi ak yéeneem ji ne doyu ko ci cant gi moom moo tax nag mu yéene ko ñëpp nag bëgg ñëpp sant la ko yàlla sant nag mooy dolliku ku sant rek ñu dolli la waaye ku santul nag day mel ni da ngaa xarab te xarab moom kenn du ci jër ak yokkute kon ñun ñëpp nan ba maase waajal màggal gi te xam ne màggal gaa ngi ñëw bu ñëwee itam bisub sangam ba bisu sallallahu alayhi wa sallam ba ma ngay ñëw ca kanam nan ko waajalaale rek ñaan yàlla yëpp bokk ñu fekk nag tan ma ne ko ni ko sëriñ bi bëggee yàgg koo jëfe lool nag sëñ baa ngi ñaanal nag murit yëpp rek fan yu gudd ànd ko wér xiiwal yu yaatu lool yun man a jekk ko ndigal yëpp te yàgg koo liggéeyal kon nee na képp koo xam ne yaa ngi teewlu waxtaan wii di rajo bi baa nga gis image bii Cheikh Fallou nee na mi ngi soññi boppam Serigne Abdoulaye Ndaw tey soññi nag ñi mu war a soññi ñëpp rek ci leen amul lu dul moom muy sëriñ bi ak liggéey yi ak ndigal yi nee fu waay déggati baatu ndigal bul ni man day woowuñu ma bul ni yëguma ko naaw dégg nga rajo bi di ko wax ca nga bokk fësal yéene ni ko sëñ bi bëggee nga fëx rek bokk ca ña ko fas yéene def waaye ku tudd saw tur nga defen dañ laa woowul kat bu ñuy séddalee. te kat bu ñuy séddalee. kenn ku ne doo nekku la woo. kenn ku ne doo nekku la woo. da ngay daw jëli rek. da ngay daw jëli rek. te kaay li wu jum doon. mooy kaay li jël rek. kon sëñ bi leen lim ñuy woo. danoo bëgg a dimbali. waaye doy wunu fitna. doy wunu ab coona. ndimbalul yàlla li nga xam ne mënuñu koo ñàkk. mënuñu nu koo may. loolu la ñu sëñ bi di doye. bu ñëwee nag dañu ko jaay. danaanu lii laa bëgg ngeen def ko su ngeen ko defee rek li ngeen bëgg lépp daa leen ko defal kon loolu sa borom a koy def nee bu ko deful ñeneen dina ko def kon nañ góorgóorlu bu baax a baax te fitiliwaat laxasaa yi te ànd bu baax a baax rek te yéeneen te jàmm sax ci ak jub te wattandi ko tere yëpp ñee jërë ngeen jëf sëñ baa ngi soññi ñëpp nag bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ndax fu ab julit nekk alal yi sëñ Tuubaa nga rawatina nag ab murit kon nan góorgóorlu ne ku ni bokkoo ci mu naqaree la lool ku ni li nga yor ñaaw na it mu metti la lool kon nag li ñu ciy boole sëñ Ablaay muy rafetal gi di ko rafetal nee nañ ca ne mooy sax ci jub te wéy ci ndigal yi te yéeneente jàmm rek nee jërëjëf sëñ Ablaye sëñ bi nee na jërë ngeen jëf ñëw gii ngeen di ñëw fii mi ngi ñaan suñu borom ñu ñëwaat ngeen ñëwaat fi diwén yu bari lool te bépp bu ñu ñëw nag nañ indaale manuk sëriñ bi fas ko yéene liggéey rek nee na xol bi sedd na guyu waaw nee na sëñ baat bi bi mu wàccee dama baat bu fi xëy si waat xar yi ñu bëgg a yóbbu Sëñ Touba nee na xar yii ñu sëñ bi bëgg a yóbbu nii ci kër Sëñ Touba Sëñ Touba mën koy yót Sëriñ Touba mën koy yót muy Cheikh Mamadou Muntaxa muy Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na fi gën a yàgg yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér moom kat dafa wax ni nam mën a bàyyi faali lool nam mën a bàyyi faali lool ci seen jëf seen jëf ak seen i wax ak seeni i wax ak seen i jëmm jëf ji mi ngi nii nee jëf ji nag mi ngi nii ñuy sarse di ko yóbbu. jëmm yi nii ñu ànd ak ñuy ànd jëf ji di dem. kàddu yi nag ko nee na kàddu yi nag nee la ko ci gënal. mooy turu yàlla wi nga xam ne. mooy turu yàlla wi nga xam ne. saa borom moo ko sédde sunu maam ja Cheikh Ibra Fall. jaarale ko ci sëñ Touba. moom sëñ Mountakha wax ni nag. dafa nam nammaat turu yàlla wi. sikkar si mu ni tey jii ci ajjuma ji di ajjuma di fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab juróom-ñetti fan. di juróom-ñetti fan. ci weeru weeru wolof. ci weeru wolof. am juróom waaw juróom-ñetti la dafa waaw juróom ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar ci weeru wolof. waaw juróom-ñaar fan ci weeru wolof waaw juróom-ñaar daa bëgg nag. tey jii tey jii. bu ñu sëlmalee timis. bu ñu sëlmalee timis sëñ ne ñu yëkkatiwaatal ku turu yàlla bi. ba fa mu ko bëggee. ba fa rek. mu ñaanal ñu. ne kon fu ko ab Baye Fall mën a déglu ca teel waxtaan wi. ndigal laa ngoog de bu timisee ne ñëpp maase ji jëm kër sëñ taxa Daaru Minam bu ñu sëlmalee timis rek ñu yëkkati tur yàlla bi déglu ko ba mu ñaanal ñu jërë ngeen jëf ginnaaw bi lépp matee ci la fi kilifa yi bàyyikoo fii ci jannatul waa bay faal nga fa yéene dem ci daarul minan ngir jébbali sëriñ bi liggéey bu sell bi jëm ci xaru tabaski yi illallah maam Cheikh la ilaha illallah la ilaha illallah maam Cheikh la ilaha illallah la ilaha illallah maam Cheikh la ilaha illallah la ilaha illallah maam Cheikh la ilaha illallah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 Cheikh bi ñu agsee ci kanamu sëriñ bi sëriñ Saliou Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ñu gën ko min ci sëriñ Saliou Fat Sow jébbal na sëriñ bi liggéey bi waaye leeral ko kàddu yi nga xam ni moo bàyyi ko ci sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di xalif général de Baye Fall Cheikh Saliou nee na mi ngi lay nuyu Mbàkke di la jottali it nuyoob sëriñ bi ak i cantam ak ay ñaanam ngir Mbàkke nga yàgg fi yàgg liggéeyal sa maam ji yàgg liggéeyil lislaam ji yëpp nee na nag moom sëriñ Saliou mi jiite mbooloo mi li mu doon sàkku ñun dong yi nga xam ni ñun li sëriñ bi yebal si woon fi yow ñu ngi sàkku nga ñaanalal ñu sëriñ Amdi Faal suñu borom gën koo defal ak wér te gën koo yàggal àdduna ndax kat ko am yéene liggéeyal la ca liggéeyal la dong nag mooy li ko fi bàyyi sëriñ dey day sàkkuwul lenn lu dul loolu mook mbooloo mi mu àndal mépp nee na fas yi leen liggéeyal rek loolu rek lay sàkku ci yow kon sëriñ Saliou nee na Mbàkke dañoo bëgg nga ñaanal ko sunu borom defal ko ak wér gën a yokk aw fanam ba liggéey bi mu yéene ci yow moo njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii ñu man ko nee na ñoom li ñi nag nee na mi ngi koy sàkku ci ni mu ko baaxoo di ko sàkku bu ñëwee fii ci mbooloom Cheikh Ibrahima Fall sa maam ji moo àndal di ay sët di ay dongo ñun ñëpp nan bokk ñaanaat ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mii sunu borom gën ko fay yàggal te gën koo dolli ak wér Serigne Saliou nee na mi ngi koy sàkku fu waay mën a nekk tey ci àdduna bi rawatina di am murit nee bu nu sañoon nag bu nu ñëwee mbàkke ba nuyu la bu nu agsee boo nu xoolee doy na sëkk ci ñun nee doy na sëkk ci ñun liggéey bi nag Mbacké gis nga ko. nee na jërëjëfati Mbàkke waaw sikar nee na sëñ bi dafa am lu nga ko waxoon léegi ci suba muy turu yàlla bi nga ko waxoon bu timisee nee na sëñ am nee fas na ko yéene ni nga ko bëggee rek nee na ni la koy defee boo neen dëkka leen ko it nee dañ koy dëkke rek ndax moo mooy sëg bëgg nee na sëg bëgg nag nee ñun bàyyi Faal yépp loolu rek leen bëgg Sëriñ Saaliwu lenn lay lu nu soxla lu nu sëg bëgg amul ban mën koo jëfee ba mën koo jëfee jërëjëf Mbàkke nee na sant nan la ñu ngi lay ñaanal sagal nga lislaam jëpp Seex Muntaxaa nee na kon ku baax te bëgg lu baax dana la bëgg de barkeb Seex Ibrahima Fall jërëjëf Mbàkke Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides santaat na bu baax a baax xalif général des Baye Fall ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu sell bii ci mbégte moo xam ni amul fenn fu mu yem mu ne jërëjëf sama xol seet na guy sama xel gën naa dal sama yaakaar gën naa dolliku mu ne cant gi nag ak ngërëm li yemul fenn ba ca kanam kanamu borom liggéey bi rek dul ca kanam kanamu borom liggéey bi jërë ngeen jëf. ginnaaw bu liggéey bi matee ñu fas yéene songu gëneen ndigal goo xam ne sëriñ bi moom la joxe ci zikarullah goo xam ne sant na ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ci aljuma ji di le 14 juin 2024 ginnaaw buñ julee timis ba noppi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéene koo jëfee li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee ba keroog mu leen di ñaanal di ñaanal ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou di xalif général des Mourides yàlla gën ko fi yàggal lool te gën ko wéeral ak xalif général des Baye Fall sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda